تُمْرُونَ mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kuréelu yaatal mbindum alxuraan bu C3S biy taxawu jongante bi ñuy amal jëm ci mbindum alxuraan moo yëgal ñépp rawatina ndongo daara yi ne gannaaw diir bu yàgg bi ñu ajandi woon bépp activité jëm ci amal boobule concours di édition 2020 2021 mu ngi xamal candidat yi jotoon na déposé ne dooraat nañu liggéey bi c 3 mi ngi xamle ne ngir wéyal liggéey boobule liste candidat yi jotoon na déposé daaw rek la ñuy jël ci njëkk bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2021 ngir jël ci ñoom ñeent fukk yi war a jàll ci xaaj bu njëkk bi ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 بنعمة ربك بمجنون Euh, ñu jeexale ko mbokk internet yi ak xeexoo bi nga xam te moo soxal sunu benn euh, doomu bu Sénégal ku ñuy wax euh, na bu Ngom mu nekk koo xamante ne ni mi ngi fekk baax ci diwaanu Touba nekk ku am juróom-ñetteelu toogu bi ci ab concours boo xam ne ñu ngi ko doon def ci wàllum tari alxuraan njàngu alxuraan ci au niveau international. Euh, waaye booy xool ni dafa mel ne kenn yëgu ko kenn sentiru ko malheureusement nous sommes dans un pays boo xamante ni yaakaar naa ne ki am raaya ci fecckat wala ci woy lañu ñu gën a jox gëdd ba ci miis yi gis nañ ko temps yi coowul miis li waaye ci mbirum diine ci mbirum diine nga am ci raaya bu la seen waa kër déggul de kenn du la dégg te malheureusement voilà le Sénégal où nous où nous nous en sommes mooy la ci réew moo xam ne caaxaan bi dafay am doole. Sénégal ngay dof dof lu léegi nga dawal oto yor kër nit woote en direct te la may la kër may la oto te boo demee kër ga mu dandal lekkuñu wala am na mbokk mu amul fu mu tëdd ngay wax waxu ñàkk xorom nii rek dof dof lu wax waxu tekkiwul dara moo tax réew mi na yéex a parce que réew mi dañoo valoriser lu amul njariñ duñ xalaat ci developpement xalaatuñ ci lu ñu soqaliku waxal waxu dof rek ñu ne bës baa ngi nii bës dañuy topp te ku nekk xam na ne. néew na nga gis ku jàngal xuraan ba noppi di luubal jàng sa diine même ñi ci christianisme bi sax bible bi ñuy jàng yar nañ leen ci éthique ci loo xamante ni tax na bu doo dégg sax seen coow ci lu bari ndax dañu am fu ñu tegu ci alxuraan naka noonu ka jàng kay téereb Molière ba ak caaxaani Molière ya kooku kay la gis muy ne ay xaalis di def lu ko neex di def jëf yu ñaaw loolu nag moo tax réew mi yàlla na ko yàlla suturaal ndax tànk boroom xam-xam yi jiitu leen te xam-xam ku nekk xam ne dafa am solo mais vaut euh, donc la quête du savoir vaut même la peine d'aller jusqu'en Chine le prophète l'avait dit sàkku xam-xam jar na dem ba Chine te yàlla du làkk mukk borom xam-xam te réew mënu suqaliku te amul xam-xam dañu war a nag occasion la suñu diine bii nii ñu fonk ko suñu alxuraan yi ñu fonk alxuraan dafa tracé lépp lu dox ci àdduna bi li scientifique di dox philosophe ak ak ku mën di doon lépp lu ñu doxal alxuraan da ko tracé ba mu leer nañ kon nañu góor góor lu waat ci suñu fonk suñu kilifa yi diine bañ nag ba sur le plan politique sax ku ci jàq ci ñoom nga jëm ku ci tiit ñoom nga jëm ku juddu borom ku jàng alxuraan lay moo lay moo moo lay moo lay moo lay moo lay moo lay moo lay tudd ku génn àdduna noonu kon nag nañu fonk alxuraan nañu fonk ñu koy gëm xale yi nañ leen xeet xeex si yoon bu baax woowu ngir ñu mën a développer réew mi mais topp ci caaxaan ku ci foofu feccoo jàngoo lëmbal kenn xamul duñ la valoriser ku ci newul ci télé di jafe fi dof ñu jël la ci kaw bës bi di statut ko tiktok ko amatuñ benn jot ku tëdd ci këram sax mu ngi ci tiktok di topp yoo xamante ni ah tiktok bi c'est vrai la baax na de boo ci toppee yu baax yi. mais topp yu ñàkk xorom ñi ñàkk fayda réew mi nañu jox gëdd te lii nag j'interpelle directement le ministère de la tutelle parce que mooy la tutelle autant pour moi mooy le ministère de l'éducation nationale il est de son devoir yu mel nii mu leen di valoriser di leen jox gëdd di leen yëkkati ci raay yu gën a kawe di leen présenter li ñuy présenter woon jaare saw ci tubaab bi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nañu fexe ba ñiy jàng alxuraan doomu soxna yi nitu daara yi ñu jox leen seen valeur ak seen gëdd